aca final baa ngi noonu dox diggante Mamadou ak Ndiol bu Sana le 24 décembre 2023 à Ndianda Ndiol Sana Mamadou Ndiaye esa di bëgg Mamadou Ndong Sing Boyar tey daa seetaan si Mamadou Ndong Sing Boyar Mamadou Ndiaye am na benn waaye ndeysaan di bëgg waa Njaan ak Ousmane Top Ibou Faye le grand soudeur waaye ñu ngi leen di jox Hervé te Simon Dieng te ñam baato mardi le 26 décembre 2023 million de francs CFA te Simon Dieng njool jël na lamb ji njool sona jël na lamb ja